لا إله إلا الله لا إله إلا الله شاكرا حمادا آتى النبي بسارة جمادا خلت بها بفله حمادا فاض بمولد النبي رجب فوضا بهم قاد إليه العجب للمصطفى نور على شهبانا خادل من ربي قربانا يقود مولد النبي لرمضان فضلا عظيما قد يديم الفادان وجه مولد النبي سوالا بما به قادل نوالا قعده إذا أتى فيه بدت وبحدا نور مولد النبي والهجة قادله درجة وحجة ndaxam ab murit saa su bëggee lu dul ndigal ak ngërëm du du benn murit ndaxam ab murit saa la mbay nga nga wax ni maam ab murit la te doo ab murit ku tàggoogu la sox la kay du murit ka tàggoo ci soxla di ngeen jib murit fobal sëb sëriñ teg fi sa xol xalam ba far fàtte say soxla ni dikk murit murit buub sëriñ dul tuxoo fi xolam du am soxla yàlla na di boobeeb murit yëgal kat ni duniyaa ni ak deex la te nag ab sëriñ moo digaalu ko murit ndegam nag sëriñ moo digaalu murit moyul génn jëm fenn yow ci murit telef la tee kat nga leeb laab lu dul nga wut sab sëriñ yow te muñ ak murit ku wax lëf lu dul sab sëriñ dal di laab teleeb jépp far fëtt sarti murit wutal sab sëriñ yow teloo ñàkk muñ teloo am fabal jox ko kon ngay murit murit day muñuk ñàkk muñ jépp lor basangam ba daakul ko luy lor murit lu lay dal ci ak ñàkk maa lor muñal ba saab sang teggil la ko yow murit bu sab sang teggee sañaaka ak salor ku lay deeti teg ñàkka ci lor murit bu teggee gulit nag sañaaka ak salor ku koy deeti teggee ti tontul murit joxal sab sëriñ sak jurak sa xolit te bul wax lu bul wax li lee murit lu dul maa ngi nii as adiyaa ngi nii bu koy wax bu koy wax lu déggal murit yabal nit ci sab sang wax loo ko lëf lu dul maa ngi koy sopp bu koy dugg murit dangay sanguloo sab sëriñ saw yaram te boo yëngatoo kët mu daw laa murit xamal yow ne ab sang day sangu nit te doo gis mu sangit ku déegul murit mu kallaf mu déegul ku koy sang mooy taab sang mooy til yëgal li murit li lee tax ku tuddu murit yomba gis la gis ku tuddu murit tey murit murit dëgg day dee te li dee metti metti jotul ak murit amaana nga gis waaye ju tëb dal di dee te doo gis ku tëb dal di def ab murit gisal waaye ngi jug di daw ci murit ba am ay murit nag te kët dug murit gisal kii tam jug di daw ci murit ba dundam nga jeex murit murit ku fas ni ku am ay murit di murit tabaas ne ko ñaaki murit du ko murit xamul lëf yëgul sax laam ak la xew te gàddu murit sax xamul ak murit li lee tax ba seytaane war gaa yi tey itam ku ku murit nag ci am ay murit te sax kuy murit ak ku dul a murit fa biis piñ ci lay feeña yeewul murit bu seela yoo kay pexe juug di aw siraatit nga xam yow ku murit balaa kenn xeebaate war naa ni ba xam luy fasoo xew murit murit yépp ngi mel ni gàncax gu te gàncax xamul ak mu jëm murit te gàncax amaana mujjub ne xajisan maral jot ko jéeb ko ku murit amaana nga gis gàncax yi juug woyof te jot ko waarul murit na ngay mujje yàlla ko xam moo xamit kanee na muy mujje jàppul murit na ngay mujje yàlla ko xam moo xamit kanee na muy mujje jàppul murit bayil yàpp nit ak di xeebi biram amaana nga ko matoo ko murit ku tabbib nawet yow te buuboo bagar ba man ko doo xam la am murit ku dee bul lu xan-xan du xam ay mbiram na ngay mus lu foo tollu am ndokk murit na ngay tuuba kay yee salu njee balit di xeebit sa jëf yépp ak sak murit ku xeebul jëfam dal di naw ay jëfam ku naw ay jëfam dal di set ci murit sa jëfu boo ko dee naw danga réere kon ni yàlla la sàkkak sa murit ndegama xam nga tey jii ni yàlla la jëfa bu wér ak bayil ndam murit bayil ndam tatak koo aku cant bar mënoo lëf defoo lëf xamoo lëf murit ku gis bopp buy naw mbayam moo kadoof ku gis gopp buy naw mbayam moo ka dofa te wax ma wax yow xalam ko murit ka yor gopp baa bay goppam ba kañ bayul te yow yaa di gobbe murit sëriñ bee yor moom itam Mustapha ko yor yàlla yor Mustapha nag murit sëriñ baa ngi jébbal ko say mbir bu wér te def koob sëriñ moom mu def lapp murit xamal lay mbiram yépp ku lay mbiram yu dul geeki barke ki ngën ji murit gërëm naa la xam naa ni maa nga sëriñ bu wér waande yàlla na la mat ab murit lëlee dikk cëriñ ni lee lu dul lii du genn ku cëriñ du ku maa ngeeti ak sa defar maati yow mi defar sab murit xesaw naa feesak lu soofaak lu bon setal maa ki mbég yaa di géeju doxal saa luy waral ak tilim teleral ma fa def ma jantub murid geureum na la xam naa ni ma nga serign bu wir waande yalna la mat ab murid te yalna la saf saf sibi pu murid te yalna la am am sibi pu murid joxal pu julit lu seddu xolam ba julit ñi ko def say murid fobal say murit yépp naa teeg ca kaw bu ku suufe ti ab murit ku dul sab murit yow nañee sab murit te bul baati kenn re sa benn subhaan rabbika rabbi salaam yasifun wa salaamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin la ilaha illallah la ilaha illallah